asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy bàyyi xel fu ngeen mën ci nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu nañ leen ziar leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun nuyoo beeg ziar bi ñu jiital ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mbooleem kilifa dina yëpp mbokk yi ñu ngi fii ci grande mosquée bu Touba nekk ci wàccaayu koor atum 1442 ginnaaw gàddaay yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di atum ci wàccaay woowu nag Cheikh Mamadul Muntaxa Mbàkke Bachir yeesalaat ndigal gi nga xam ne moom la joxoon mu daayira Muxaddamatul ma ci at yi ñu weesu ren ji nag mu yeesalaat ko ngir ñu fas ni dundalaat koor gi na nga xam ne noonu lañ ko daan dundalee fii ci grande mosquée bu Touba ak li nga xam ne moo ci am yëpp moo xam waxtaan yi la moo xam ndog yi la ak ni nga xam ne noonu la ñuy taxawoo bërëb bi ci biir koor gi loole nag laaj wàccaay ba tax na daayira Muxaddamatul Xidma ci àjjuma ji dëppook le 9 avril 2021 fas yéene amal ndaje moo xam ne dañ ci ànd ak mbooleem opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir waxtaan li nga xam ne moom moo jëm ci wàccaayu ndog yooyu nga xam ne moom la ñu amal fii nii ci Touba ci Grande Mosquée ci biir weeru koor gi kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan wi rapport yi nga xam ne moom la fas yéene liir mu jëm ci ni nga xam ne noonu la ñu amalee woon koor yi weesu rapport yooyu ak waxtaan yi nga xam ne moom lañ fi euh, moom mooy bàyyeekoo ci waxtaan wi la kon mbokk yi nga xam ne yéen ñuy teewlu fii ci grande mosquée bu Touba ñu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaanu wu am solo woowu laataa ñuy tënk. aouzu billah aouzu billahi min acheytaani rajim bismillahi mbokk yi teew ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di leen nuyu ci turu daayira muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya bu al imam mii toog nga xam ne moo jiite jataay bi tey di leen jaajëfal bu baax di leen balu àq di ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal suñuy bakkaar te nangul ñu liggéey bi ñuy liggéey xam naa waxtu yi mi ngi dem dañoo bëggoon tàmbali rek liggéey bi ñu bëggoon nag bala ñu koo tàmbali ñu taxawlu tuuti fàttaliku ay jàmbaar ay mbokki taalibe yoo xam ne ñenn ñi bokkoon nañ ci ñi sosoon liggéey bi daan teew ci jataay bi daan dugal seen loxo bu baax ci liggéey bi te tey jii ñu wuy ji seen boroom ñu ñu des fii war leen nag fàttaliku war leen a ñaanal bokk na ca jàmbaar ju mag ju ñuy wax alxaaji Moustapha Gajaga bokkoon na ci ñi nga xam ne liggéey bii ci seeni loxo la tàmbale woon mu doonoon jàmbaar lool waxtu wii daaw toogoon na ci jataay bii bokk kook ñun yëkkati ci ay kàddu yu am solo yoo xam ne ba tey mi ngi des ci xol yi Pastef fa mu itam kenn nattabliwu ko woon liggéey bi itam daawu ko caaxaane benn yoon keroog ba ñu demee ci Cheikh Salih Mbacké mu joxe ci ndigal ba ni mu fi jógee wenn doxin wam ci doon doxe rek la ci doon doxe kon bu ñu ñëwee ci jataay bi tey yàlla dogal mu wuy ji boroomam bàyyi ni fi nun ñuy wéyal liggéey bi dana jaadu bala ñoo tàmbali ñu fàttali ko bu baax waaye itam am na yeneen mbokki taalibe yoo xam ne itam ni moom lañu mel bokk na ci sëriñ Daam Gay ñu ko daan dàkkental ci seen daam gay yaaram moom itam borom pëstéef la woon lool yàlla dogal na daaw bi muy génn àddina dafa ma fekk ci kër alaaji Moussa Mbay ma koy jox leetari tontu yi nga xam ne ñu joxe woon seen àddiyee ci liggéey bi ñoom lañ ko doon bind fi ñu toog ba génneeb leetaram ci la téléphone sone ñu di ko yëgal ne ko alaaji daam gay moomu bàyyi ko na fi loolu nag yaakaar naa màndarga mu rëy la ci liggéey bu nangu bokk na ci itam ku ñuy wax Serigne taala Niang moom itam bokkoon ci jàmbaar yi féete woon fële ca Espagne moom itam doonoon jàmbaar lool ci liggéey bi wuy ji boroomam bokk na ci itam ku ñuy wax Serigne Modou Awa Diop kenkaayeri fële ca Daaru Xuddoos Serigne Mor Awa Diop kenkaayeri fële ca Daaru Xuddoos moom itam jàmbaar la woon lool at mu jot ab liggéeyam day feeñ bu baax a baax ci liggéey bi bokk na ci am suñu jur bu baax woo xam ne moom it daana participer ci liggéey bi waaye yamut ci moom waaye di ci xiirtal ak njabootam ñu koy wax Baye Mass Diop moom itam dañ ko fàttaliku bu baax a baax ak ku ñuy wax Serigne Mbacke seen ñooñu ñëpp di ñoo xam ne xëy na ak ñeneen ñu ñu xamut sax ndax mën naa am ñeneen ñoo xam ne xëy na xamuñu leen wala yëguñu ne sax génn nañ àddina kon nag dañuy jël toroxlu ci kanam borom bi jox suñu affaire mu joxe dog ñu ñaanal leen suñu borom jëggal leen te yërëm leen ñu doog a tàbbi ci liggéey bi sëriñ bi kon nee na ñu jàng faatixa ju sell ak fukki lixlaas ak benn tëje ko salaatu ala nabi ñu ñaanal leen suñ boroom njéggal ak bu ñu noppee bu ñu noppee mu ne ñu jàng juróom ñaari inaan zelnaahu ñaan leen ko ba tey comme niñ ko waxee woon rek ñu fasale leen ci fasaale ci itam mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom liggéey bi te ñu jiitu ji du ñu fàtte itam soxna cekk ñang doonoon moom itam jàmbaar jiite woon jigéen ñi def liggéey bu rëy ci daayira Muxaddamatul Xidma moom itam wuy ji woon boroomam moom itam ñu fasaale ko ci te yéene la ñu yéenewaale ko ci bu ko defee niñ ko baaxoo defee suñu masaan toll ci waxtu wii ba sëriñ bi joxe ndigal ci ñu taxaw liggéey bi daanañu daje ngir xayma liggéeyub daaw bi soññee itam ci liggéey bi ñu dëgmal ren itam site internet bi nekk ñoom itam noonu lañ def lu jiitu koor gi defar nañ sonorisation jumaa ji waxtaan yi jëm yu doon am ci biir koor gi itam doon nañ ko jàllale ci site internet bi waaye mbooleem rajo yi nekk ci gox bi itam dajale nañ leen ngir ñu man di jàllale waxtaan yi ba lu mat fukki rajo ak ñaar wala fukki seen site internet ak ñaar dajal doon nañ ko jàllale lu mel ne làmp Fall TV rajo jant bi ñoom itam ñoo ko doon def direct télé yi itam ñetti tele doon nañ jàllale waxtaan yi muy Lamp Fall TV Al Mouridiya ak euh, Touba TV ñoom seen budget cinq cent ci la tolloon secrétaire administratif ñoom ñooy saytu liggéey bi ci wàllu bind lépp lu ñu soxla ci wàllu bind rek ñoom ñoo koy def li commission yi soxla ci wàllu mbind wala membre buy bëgg a bind wala yu mel noonu ñoom defaral nañ commission yi lépp lu ñu soxla ci wàllu mbind barkeelu yu fi ñëw lu fi waay indi ci àddiya moo xam xaalis la moo xam lu mën a doon itam danañ ko bind waaye danañ bind leetar bu buy wone ne diw sàngam la mu joxe woon agsi na diw indi na ko ngir liggéey bi gën a mën a leer mën a tege ci yoon ñoom itam seenu budget tolloon na ci deux cent cent deux cent vingt mille deux cent cinquante deux cent vingt mille deux cent cinquante commission organisation mooy commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi ñu ngi woon ci commission organisation nga xam ne moom mooy organiser mbooleem daayira bi lépp lu daayira bi di taxawal ci ay liggéey moom lañ ko dénk moo koy organiser ah, liggéey bi ci wàllu waajal ndogu yi ak dalal nit ñeeg yu ñu toppatoo yu mel noonu seenub liggéey daaw daana tàmbali midi ci suba maanaam midi la daan tàmbali fukki waxtoog ñaar ci suba ba fukki waxtu ak benn ci guddi diiru weeru koor wi membre ñu doon liggéeyloo daaw it comme ni ma waxe comme ni ma ko junjee woon gannaaw daaw liggéey bi daa soppeek woon moo tax membre yi ñu daan jëfandikoo bariwul fanweeri nit ak juróom-ñett ñoo yoroon liggéey boobu ñaar fukki góor ak juróom ak fukki jigéen ak ñett ñoom seen budget 5 millions 656 mille 600 la woon commission finance mooy commission bi nga xam ne mooy dajale mbooleem addi yi ñu indi ci daayira bi te mu jëm ci liggéey bi moo koy dajale di ko financé bu ko defee dañuy njëkkanteek waxtu wi rek nag ñëw ci euh, ñi nga xam ne ñoo fi doon indi seeni addiya jëm ci wàllu xaalis ci biir koor gi xëy na duñu tudd ñëpp waaye buñ ci tuddee Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo joxe ndigal ci liggéey bi waaye moo ci njëkk a jiital jëfam joxe na ci ay koppar yu am solo waaye itam joxe ci yeneen addiye yoo xam ne yu ñuy jëfandikoo la yu jëm ci wàllu ay barkel yoo xam ne lu jëm ci wàllu suukar ak tàndarma ne nañ ko barkeloo ci liggéey bi loole itam di jëf ju rëy joo xam ne danañ ko gaaral mbooloo mi waaye mbooloo mu bari ñoo xam ne ñi ay opérateur économique lañ ñenn ñi ay ouvrier lañ kenn desul du commerçant rek waaye ouvrier yi menuisier mécanicien euh, boulangerie yi ñi yor boulangerie yi kenn desul ñoom ñëpp lu ci waa joxe rek sa tur mi ngi ci rapport bi kamu jaar itam muy ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu képp koo xam ne bëgg nga ci lu la leer boo demee ñoom ñi ngi ak rapport bi muy alaaji Moussa mbay ak alaaji Baara Diop ñoom ñi ngi ñi ngi ñi rapport bi tur yi ñëpp ña nga ca kenn desul ku ci nekk la nga joxe ak ca kan ko jaarale mi ngi ci rapport bi ñooñu bu ñu leen xoolee ñi nga xam ne ñoo ci joxe wàllu xaalis toll nañ ci juróom ñett fukki nit ak juróom ñaar juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñaar euh, li ci ay mbooloo lu mat juróom-benn mbooloo yoo xamante ni ñi ngi ci biir ñi ci des ay ay personnes lañ waaye ñi des ay mbooloo lañ xaalis yooyu nag buñ ko xoolee buñ ko xaymaa lépp moo xam ci ñaar ñu ma tudd muy Alaaji Moussa wala sëriñ Bara wala lu jaar ci mu muxaddamatul xidma ñëw directement ci daayira bi wala ci ay sëlilam yi nekk ci biir réew mi ba bitim réew bu ñu xoolee loolu tolloon na ci fukki million ak juróom ak ñaar fukki ak juróom yu tegal téeméer ak ñaar fukk téeméer ak fanweer ak juróom-ñett maanaam 15 millions 125 mille 690 kon 15 millions 125 mille 690 mooy xaalis espèce bi yëpp El Hadj Moussa Mbaye versé na ci 4 millions 147 mille Serigne Bara Diop versé ci 1 million 687 mille 500 kon foofu boo xoolee ñoom ñaar bu ñu boolee seen total mi ngi nekk million 5 millions 834 mille 500 bu fekk see li nga xam ne moo jaar ci daayira Muxaddamatul Xidma te doon ñaari pàcc lenn li ci biir réew mi lenn li ci bitim réew li jóge bitim réew danañ ci tudd fondation Muxaddamatul Xidma ba nekk Touba Amérique moom joxe nañ ci ñoom itam lu mat 3 millions ah, ñi nga xamante ni nag ñoo nekk ci Europe ak Afrique te Serigne Assane Diop di ko coordonné ñoo loolu ñeen ñooñu liñ joxe woon toll na ci trois millions trois cent trente et un cent quatre-vingt-dix trois millions millions trois cent trente mille cent quatre vingt ndax daayira Muxaddamatul Xidma dafa am ay fédération yoo xam ne day ànd ak ñoom di liggéey ñenn ñi nekk ci biir réew mi ñenn ñi nekk bitim réew fédération yi nekk bitim réew bokk na ci nekk Europe sëñ Assane Diop di ko coordonné moog yi nekk Afrique moog ñi mu ko àndal bu dee Europe mën nañ cee tudd réew mu mel ni itali Espagne Allemagne Angleterre Belgique Danemark Suède France Grèce ak Turquie foofu fu ci nekk am na ay mbokki taalibe yu fa nekk di yëngutu ci liggéeyub liggéeyu daayira mu xaddamatul xidma ci jumaay Touba te sëñ Assane di seen jëwriñ ji leen di coordonné waaye itam fu mel ne Afrique itam fàttewuñ leen fu mel ne Mali Côte d'Ivoire nigeria Gabon Togo ba Ghana foofu itam fu ci nekk am na ñu fa nekk ñoo xam ne dañoo takk seen ndigg ku ci mel ne Serigne Wagan Faye ca Nigéria di jàmbaar lool borom pëseef ñu mel noonu réew mu ci nekk am na ñu mel noonu ñoo xam ne ñoo fa nekk di yëngatu ci liggéey bi waaye Chine itam ci Asie itam duñ leen fàtte. sëriñ Madoune booy ak ñi mu àndal ñoom itam doon nañ yëngutu ci liggéeyu koor gi. fondation Muxaddamatul Xidma ni ma ko waxee woon ci Amérique te sëriñ Cheikh Jonn ak sëriñ Amsatu Laam euh, ñoom itam euh, seen taxawaay fés na bu baax a baax a baax ñoom moom euh, dañoo créer benn fondation boo xamante ni dañ koo jagleel rek liggéeyu jumaay Touba. di ci participer à la source jamono bu nekk moo xam événement bu am koor màggal ak yëngu yi ñuy def ci jumaa ji yëpp dañ ciy dugal seen loxo waa Brésil itam duñ leen fàtte ñoom itam ay jàmbaar lañ lool ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne ñoo ñu kon ñoo dajale addiye yooyu ci koor gi dugal ko ci te mu toll ci 6 millions 331 mille 190 bu dee daayira bi nag jëmmi daayira bi ci biir Touba ak biir Sénégal nga xam ne membre yi ci boppam ñoo boole di liggéey ak di participer ah wala mbokki taalibe yoo xam ne jaaral nañ seen i barkeelu ci ñoom mi ngi toll ci cinq millions neuf cent soixante mille cinq millions neuf cent soixante mille kon li jaar ci daayira bi cinq millions neuf cent soixante mille la ci biir réew mi bu dee bitim réew six millions trois cent trente un mille cent quatre vingt bu dee li jaar ci ñoom Alaaji Moussa ak Sëriñ Baara toll ci cinq millions huit cent trente mille cinq cent kon total bi day àgg ci dix huit millions cent vingt cinq mille six cent quatre vingt dix cent vingt cinq mille six cent mooy li nga xam ne moom lañ dajale woon daaw ci addiya yi loolu nag day fekk ci itam ñi nga xam ne dañuy joxe seen barkeelu ci wàllu xaalis wala seen barkeelu ci wàllu ay bagage lu mel ne suukar ak tàndarmaak yeneen yu ni demee moom itam Cheikh mun taxaa moo nekk ca bopp ba waaye mbooloo mu bari itam sëriñ Saliou Guèye sëriñ Mbuub soxna Gàdd Buso sëriñ Cheikh Oumy Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Fadal soxna maam Anta Gaye euh, sëriñ Cheikh ali Mbacké ak sëriñ Souleymane Diagne ak benn sellu daayira nag boo xam ne itam seen fi itam ràññeeku na lool seen jëf jamono bu nekk ñu koy ñu leen di wax ilhamul latiful xabir ñoom ñoo yor lépp lu xeetu ci parfum ci jumaa ji wala cuuraay ñoom ñoo ko fiy def waaye yëngu yi daayira bii def it dañ ciy dugal seen loxo daaw indi nañ lu mat ñeent fukki saakoy bisaab ak juróom-ñaar moom lañ njëkk a indi lu jiitu koor gi ren itam defewaat nañ ko noonu waaye bañ demee ba ci biir koor geet seen addiya lañ dajale mu takk lool ñu ñëw jébbale ko ñoom itam seenub liggéey ràññeeku na lool waaye itam ñu mel ne ku mel ne Serigne Cheikh Abi Serigne Fallou Bousso Mbacke Kanni soxna Ndey Njaay Fata sëriñ Abdoul Fata Diop Abdoul Fata Seck ak nag mbooloo mu mag mi nga xam ne ba ñu tàmbalee liggéey ba léegi ñu laxasaayu ànd kook ñun ñu leen ñu koy wax daairatu miftaaxul xuyuur nga xam ne lépp lu aju ci wàllu mburu ñoom ñoo ko yor ci njiitul sëriñ am di ñoom itam seen pastif ràññeeku na lool ndax daaw jéeg bi ñu gisee ne amoon nañ ay jafe-jafe at yee ci wàllu tardement yi ci ni mburu mi ñëwee ci jumaa ji loolu tax na ñu wutoo fexe woon ba am daamar joo xam ne loolu rek lañ ko jagleel ngir muy jëli mburu mi di ko indi ci jumaa ji ngir waxtu wi di bañ a tardé daaw itam noonu lañ ko doon defee li yëf yi xat-xat taxut seen ñu tegg seen tànk ci la seen pastif gën a yokkoo ba tax na daaw liñ doon indi ci mburu sax xam ngeen li doon jóge ci jumaa ji wax naa ne 150 personnes la kon boo xoolee ñoom liñ fi indi ci mburu nga xam ne toll na ci juróom-ñetti junniy mburu yu tegal juróom mbenn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent 8629 loola xam nga ne téeméer ak juróom fukk mënuñu ko doge waaye daari mu xaddamatu xidma ndigal li leen sëriñ bi joxoon tax na ñuy jël mburu yooyu xool kër yu mag yi wër a penc mi ak daare alxuraan yi nga xam ne jamonoy kufur fa lañ nekkoon mënuñu woon génn di yalwaani ndog wala dara ñu fexe di leen ko yët balaa dog a jot nga xam ne bu ñu ko dajalee ci jumaa ji liñ ciy doge rek la ñuy génne li ci des lépp dañuy wër kër yu mag yi nga xam ne ay mbooloo dañ fay nekk te duñ mën a génn wala daare alxuraan yi nga xam ne donge yi duñ mën a yalwaani ñu di leen yët loolu ngir jëfe ndigalu sëriñ bi kon ñi ngi leen di sargal bu baax a baax di leen delloo njukkal loolu ci ay bagage nag buñ ko xaymaa nga xam ne lu ñu fi indi moo xam suukar la moo xam tàndarma dañuy xool njëg ga muy jar ñu xayma ko ndax itam consommation lay doon loola bañ ko xaymaa toll na ci trois millions trois cent cinquante sept mille deux cent vingt cinq du ñu fàtte itam El Hadj Ablaye Dia bu Sénico moom itam defoon na liggéey bu am solo boo xam ne daaw ci koor gi ci wàllu ay ceeb ak yooyu joxoon ko daayira bi mu moom itam mu di ko séddale ñi nga xamante ni ñoo ko aajowoo ak yu mel lu mel ne daaree alxuraan yi moom itam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kon bu ñu xoolee li ñu fi jëfandikoo lépp bu dee suukar. toll na ci 43 sacs bu dee tàndarma toll na ci 13 cartons de di di di kilos waaw ak café yu ni demee bu dee mburu mi toll na ci mille cent 9287 maanaam bu ñu boolee li ñu fi joxee lépp toll na ci mille 9 millions 9287 baguette pain nga xam ne bu ñu ko doon xayma mburu bu ne ñaar fukk ak juróom day nekk un million cent 160 mille cent 875. un million cent soixante mille huit cent soixante quinze kon bagages yooyu buñ totalee totaalee yëpp nga xam ne moom lañ moom lañ euh, moo fi li fi ñëw ci bagage ñu xayma ko ci xaalis toll na ci trois millions trois cent cinquante sept mille deux cent vingt cinq dépenses yi nag ni ma ko waxee woon ci commission yi la jëm organisation am na ci loo xam ne fonctionnement la am na ci loo xam ne consommation la lu ñu jënd moo xam lu ñuy naan la wala lu ñuy jëfandikoo ci biir jumaa ji waaye am na ci yoo xamante ni nag lu mel ne ay fonctionnement la lu mel ne ay transport ak yu ni demee ñoom seen budget cinq millions six cent cinquante six mille six cent moom moom lañ jëfandikoo daaw bu dee ndimbal yi jëm ci waa jumaa ji te waa euh, commission sociale yoroon ko ni ma ko waxee ñoom itam def ci liggéey bu am solo six millions deux cent cinquante mille la bu dee lu jëm ci wàllu culture maanaam ñu yor jataayu waxtaan yi dañuy amal jataay yu am am solo daaw ñi ko doon topp jàpp nañ ne sax jataay yooyu nga xam ne mbooloo mi fekkewuñ ko ñi doon toog seen kër di ko topp doon ko wettalante ci koor gi jataay yu ama am solo la ñoom euh, seen budget tolloon na ci un million dix-sept mille deux cent francs ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi lenn li dafa jëm ci waxtaankat yi lenn li dafa jëm ci lu mel ne ay transport yóbbu waxtaankat yeeg ak yeneen i dépense yu wuute ay téléphone ak yu mel noonu ren itam waajal nañ jataay waxtaan yoo xam ne euh, yu ama am solo la yoo xam ne fas yéene nañ koo amal ci ay tomb lu mel ne njariñul jàng alxuraan tibbee ko ci Masaalikul Jinaan bokk na ci ñu waajal lu mel ne sëñ Afi war a koo def bokk na ci itam ndaw ñi sas wi ñu am ci war a defar societé bi loolu itam bokk na ci thème yi ñu war a waxtaane ren sëñ Fallou Bousso Assane war koo def njariñul xam-xam am solo gi xam-xam am solo te tibbee ko ci njàngaleem seexul xaddim boobu itam sëriñ Abo Mbàkke war koo def ak lu mel ne ay fatawa ay jataay waxtaan yoo xam ne dañ ciy laaj ak tontu yooyu itam waajal nañ ko ren bu ko defee lu mel ne waa communication ñoom itam ni ma ko waxee woon lépp lu jëm ci communication transport essence yu mel noonu ak lu mel ne ay jumtukaay yi jëm ci wàllu communication ñoom itam amal nañ ko ci trois cent sept mille cinq cent bu dee secretariat général quarante mille mooy seen budget secrétariat administratif waxoon naa ko deux cent vingt mille deux cent cinquante kon budget yooyu liñ ñoom commission yooyu dépensé nañ treize millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent cinquante kon bu ñu xoolee li ñu fi jëfandikoo lépp ci commission yeeg yëpp ak ñu fi indeeg yëpp buñ ko boolee seize millions huit cent quarante-huit mille sept cent soixante-quinze la seize millions huit cent quarante mille sept cent soixante-quinze kon bu fekkee li fi ñëw ci xaalis dix huit millions cent vingt cinq mille six cent quatre la li fi ñëw ci bagage di trois millions trois cent cinquante sept mille deux cent vingt cinq boo leen xaymaa boole leen mu nekk vingt et un millions quatre cent quatre vingt deux mille neuf cent quinze francs vingt et un millions quatre cent quatre vingt deux mille neuf cent quinze francs euh, kon loolu nag buñ ci financé. treize millions quatre cent quatre vingt onze mille cinq cent cinquante yoo xam ne xaalis espèce la ak bagage yi nga xam ne moo fi ñëw di trois millions trois cent cinquante sept mille deux cent vingt cinq seen boole di seize millions huit cent quarante huit mille sept cent soixante quinze. loolu nag bu génnee ca montant total bee di vingt et un millions quatre cent quatre vingt deux mille neuf cent quinze francs mi ngi war a des quatre millions six cent trente quatre mille cent quarante francs maanaam. ci xaalis bi jëmoon ci koor gi 4 millions 634 mille 140 francs 4 mille 4 millions 834 mille yooyu nag dafa dugg ci liggéeyu daara Muxaddamatul Xidma rawatina daaw ndax ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi daaw sëriñ bi dafa joxoon ndigal daayira bi ci lu aju ci jumaa ji ci saytu bi ndax xam nañ ne jumaay Tuubaa dafa amoon sas wu rëy ci mbas mi bi mbas mi duggee sëriñ bi dafa joxewoon woon ci ne ñi fiy liggéeyee rek te nekk ci jumaa ji nañ fi féete di fi jullee waaye itam biñ demee ba war a ba mu joxewaat ndigal ñu war a mbooloo mi tàmbaliwaat ñëw itam dafa am ay mesures yu mu ko booleeloon ci wàllu cet ci wàllu ay raxasoog ci wàllu ay selak ci wàllu ay maskak yu mel noonu ba tax na daaw daayira bi financé na ci biir mbas mi lu toll ci fukki million ak juróom-ñaar yoo xam ne ci keesam la génne mu jëm ci matukaay yi nga xam ne moom lañu waroon jël ci jumaa ji yu bokkul ak nag taxawaay yi nga xam ne moom lañu def ci màggal gi loola tax na ba loola desee ci koor gi amatuñ lan lu ñuy def lu dul dugal ko ci liggéey boobu nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon ci liggéeyu mas mi ba tax na daayira Muxaddamatul Xidma taxawaay boobu la defoon daaw ci biir liggéey bi kon comme waxtu wi mi ngi guddi dañuy jéem a tënk kàddu yi rek bu ko defee jox kilifa yi nga xam ne bëgg nañ cee sànni ay kàddu ay kàddu soññee bala ñoo jox sëriñ Afia ñi ngi sant daal mbooleem ku ci jëf ak noo ci mën a jëfe moo xam ci biir Touba nga nekk wala biir réew mi ba bitim réew cant googu nag Cheikh Mouhamadul Mountakha lañ ciy jiital ak képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo rek ak foo noo ko ci dugalee rek moo xam ci xalaat la moo xam ci xaalis la moo xam ci bagage la moo xam lu mu mën a doon kilifay dëkk bi yëpp kenn kenn wallewu ko ñoom ñëpp dugal nañ seen loxo ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm xanaa di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala rek ñi ci jiitu ji suñu borom jëggal leen te sotti ci ñoom yeesal ci ñoom yërmande ñun ñi nga xamante ni ñoo fi des doon ci liggéey tam liggéey bi sëriñ bi nangul ñu ko te bañ cee gis suñu bopp te yàgg ko taxawee te yaakaar ji ci sëriñ Saliou amoon ba taxoon mu digle ko jë bu set ñu ciy gis lu gën a kawe njortu ñu ngi jaajëfal ñépp di yëkkati foofu kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ciy war a jël kàddu ah, sëñ kàbbu ah, wala sëñ baara ndax diggante alaaji Moussa diggante gee gi ak timis gi xaw naa gàtt te yitte yi bari na mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu te di leen jéggulu yàlla dafa dogal sëñ Baara jox ma kàddu gi waaye taxu taxumaa mën a wax ci biir mbooloo waaye nag dafa mel ni <clears throat> soññe dina yomb ndax ginnaaw da danoo lu jiitu mm, mm, xew-xew bii di am muy mbas mi danoo liggéeyan at mi ci mujj ba am lu mat biñ ko seetee amal nañ lu mat 42 millions ah mbas mi xam naa daaw tax na ak daje gi daje gi melul nam daan mel boo ko seetloo ak lii mu wax ni vingt et vingt million day mel ni kon xaaj bi rek la ñoom waaye nag kon dañuy tàmbaliwaat ca ba mbas mi ñëwagul lan sa borom dogalan nu am ko loole nañ yokk nañ ko yokk bu baax a baax a baax 42 million lañ amoon ca ba mbas mi ñëwagul léegi ginnaaw seen joxwaat na ndigal ngir ñu tàmbaliwaat liggéey ba na meloon lu jiitu loolu ah te buñ koy tàmbali dañuy xam ni dina am yeneen fere ndax ñii yor liggéey bi tey dinañ am eh, lu mel ni ay masque masir barrière dinañ ci dinañ ci def yeneen finance waaw masir barrière dina am yeneen finance financement yu ci ànd yu bokkut ak ndog yi dong kon nag day mel ni euh, li nu war ren mooy gën a takk suñu digg te bañ a xool ci jamono ji xool ci sëriñ bi rek loo xam ni xalifa général mu mourides moo koy jiite di ci def yàlla na ko yàlla dolli ndimbal dolli ko xéewal te te te dolli ko wér ba lépp lu mu bëgg sama borom ko ba def ko te nu ànd koog moom waaye daal soññe rek la soññe bi nag weesuwul daaw moom lu yàlla indi woon la weesu na ren sëñ bi nee na nañ def ndog yi nañ ko daa def kon nag fa nu yaman mooy 42 millions bu nu bu nu fa bu nu fa yemaat bu nu fa yemaat nañ loolu rek mooy wax ci wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi kenn ku nekk ñu ngi koy nuyu nuyu ci turam ak santam. di ñaan nii nu ko fekkee ren yàlla sama borom tabaraka wa taala dimbali ban fekkee ko déwén bi jaay nabil Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam suñu sang bi suñu tedd bi di suñu xalif di suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira yal na ko sama borom may fan wu gudd ànd ak wér ba naa li Sëriñ Tuubaa naa leen yëpp mu yeggale ko ndax am nañ ci yaakaar lool ndax bu yàggu rek dem na seeti université bee xolam sedd na ca guy képp koo xam ne kii nag sa dërëm dugg na ca yàlla na nga fekk eh, eh, daloo ga ak njàngale ma ak njariñ la ciy génn lépp yàlla bu na nga ko fekkee ci barke Seexul Xadiim suñu xel dal na lool ndax université bi mooy sunub sag na saa Masaalikul Jinaan mel ca Ndakaaru noonu la université bi mel fii université boo xam ne bii murit ñoo ko defal seen bopp xaaruñu ci leen tabax ko fas yéene teg fa ay jàngale ñu jàngale xam-xam yombul ci Afrique kon war nañoo wax ñun muri yi alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax ah jataay bii nag képp koo xam ni kii teew nga fi ñi ngi ñaan sam borom bu déwénee nga fekke waat ko yal nañ ko sam borom defal ñi nga xam ne noo ko daan bokk ak ñoom niñ ko waxee sàng ñu demit yàlla nañ tase ndimbalul sëriñ Touba ñu tëdd yàlla na leen foofa dàqal fii ñu jóge ah sama mbokk ambulancier yi maa ngi leen di sant di leen gërëm te ñaan ngeen yokk li ngeen daan liggéey ndax kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa kat waroo taxaw waroo gestu kon góorgóorlu leen bu baax a baax a baax ci liggéey bi ndax amuñu lu dul dëkk bi moom laa di wax toujours fu ñu toll nañ di jàpp bu baax dëkk bi ndax lë mooy mooy suñu lépp suñu àddina ku jekk ñëw ku jekkali ku ñëw ku tële ñëw Tuubaa moom mooy mooy mooy lépp waaw kon ku fi nekk ku ne war ngaa xam fi nga nekk lan la waaw am murit moom sagam rombul Tuubaa kon nanu ngembuwaat takkuwaat yokk bu baax a baax a baax li ñu jëf te bañ koo naw ndax loo wax ñu ne murit dara tëwu ko kon loolu nag nan koy sàmm guddi ak bëccëg ah wax ji nag lu fi waaye di waxaat da ngay waxaat rek waaye du paase ak cant sant nan bu baax a baax ndax itam euh, nekk ci dëkk bi liggéey bu toll nii samborom may la nga fekk am wér fekk ko ba bokk ci jataay bii di jël saw ñaq di ci def kenn amul teraanga ju ko ëpp kon kenn ci bokk rek te di ñëw ci jataay bi war nga wax alhamdulilahi rabbil alamin tax ñëw ci jataay bi dina tax na nga gën a soññ sa bopp dina tax nga yokk sa pasteef ndax boo dee toog ñu di la nettali wala gisoo listik ni taalibay jëfi da ngay tayyel waaye boo dee ñëw di fekk di gis nit ñuy liggéey loo def reen bu déwénee di nga ñaan def lu ko ëpp alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf sëriñ Touba. ok jërëjëf man lay kàddu yi mëntoon a ñàkk kon sëñ di mën ngaa jege si suñu Amdi Lo daayiratu Miftaahul Xuyur ñoom ñoo yor lu jëm ci mburu mi salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp kàddu yi de xam naa mën naa bañ a gudd ndax liggéey bu mel nii ku sunu borom dimbali ba nga tàbbi ca nga xam ne bari na mbooloo yoo xam ne ñu ngi jiix bëggu sëriñ bi kon boo demee ba ñëpp yaqin gi waroo ca doxee sa sago ñun moo tax daanaka liggéey bi ñu ciy liggéey foofu rek lañ ko teg ba tax na euh, at mu nekk balaa ñëw balaa ñoo sax fekk na ñun tëral nañ suñu programme noo xam ne nii jàpp nañ ne lañ defoon daaw moom dañ ko war a fawx ndax sëñ Tuubaa mu tànk kanam rek la am waaye amul tànk gannaaw kon xam naa ñu ngi jégalu bu baax a baax. di sant nag bu baax a baax euh, sëñ Gouda Ciss mii fi nekk nga xam ne mooy social te moo koy taxaw noo xam ne ni mucc na ayib lool jërë ngeen jëf. ok jërë jërëjëf sëñ di ci kàddu yu am solo yooyu sëñ Gouda moom taxawaayam ràññee nañ ko bu baax a baax a baax waaye nag ni nga ko waxee rek fii moom lu fi waaye def boppam la ko defal. kon ñu sëriñ Galas Xumma mook mbooloo mi nga xam ne ñooy waa ACIS maanaam. mbooloo mi yëngatu ci wàllu jaay ak jënd te nekk ci dëkk bi moom moo leen fi teewal mook sëñ Mamor Kebe xanaa sëñ Galas day jege si rek jël kàddu ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay fekk si nañ seen i mag ci liggéey bi ci jëf ji topp ci seen ginnaaw di leen masawu itam ci jafe yi nga xam ne jaaroon na fi muy nattu bi daloon ci seen kaw lakk gi amoon ci marché bi daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi leen ci masawu bu baax xanaa dafa fekk ne fu ñuy waxee ay bakkan yu dem waree su faa jooy ay alal yu yàqu waaye nag lu metti la ñi ngi ñaan suñu borom wuutalal leen alal ju ko gën joo xam ne addee ju jëm ci sëriñ Touba mën na faa génn sëñ Galas bisimilah. macha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi ñaanal sëñ Mountakha suñu borom yàggal ko fi ba yéene ji ci liggéeyal Serigne Touba mu defee ko na mu ko bëgg te ñu ànd koog moom di jaajëfal bu baax daayiratu Muxaddamatul Xidma di njiitul sëriñ Afiya Buso ko ñaanal suñu borom eggale seen yéene ci liggéeyal sëñ Tuubaa bi nga xam ne ñoo ngi koy def te ñu koy def an daanaka ñu ko defal dëkk bépp di ko defal taalibe yépp kon ñu koy rafet lu baax a baax di leen sant bu baax a baax ci li nga wax léegi ndax bi natt bi dalee suñu kaw ñëw ngeen fa ñaanal ñu rek loolu doyoon na suñu xel dalal na suñu xel bu baax a baax kon tey lii di liggéeyub sëriñ Tuubaa boo xam ni ñun lañ koy defal ñun waa dëkk bépp te kun kenn war war nañu kon buñ ko wootee ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ te nekk ci dëkk bi te nekk di yaxantu ci marché bi kon kenn ñu coo jiitu war ñoo takk sunu fulla ak sunu fayda ba lépp lu ñu defal Serigne Touba ci dëkk bi kenn bañ ñu caa man kon ñoo ngi woo suñu mbokki commerçant yi nga xamante ni ñoo ngi yewoo ci dëkk bi di yaxantu te xam ne lu ñu yor Serigne Touba leen ko jox te amuñu lu liggéey Serigne Touba kon bu ñu woo ci liggéey Serigne Touba rek dañoo bëgg a dimbali tey defuñu lu fa yéene liggéey Serigne Touba rek moom la ñu fi bàyyee ndax duñ dem fenn ba kenn bañee kenn te loolu lépp Serigne Touba ñu ko may kon nag buñ ñu ko mayee te jumaam ji moo xam ne mooy li nga xam ne moom la fi bàyyi woon muy liggéey ba nga xam ne moo ci jiitu kon nag ñoo ngi ci woo ñi nga xam ne dëkk bi te yaxantu ñu fexe ba ba kenn bañ ñu cee man ndax de bu ku ci man ku ne kenn du la man ci dara te da nga def du la wàññi dara kon nag ñoo leen ci woo ñoom ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Galas ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati nga ko kon xanaa ñu jàll ci sëñ Baara wala Alaaji Moussa kon alaaji Moussa di jëwriñ joo xam ne nag suñu affaire war nga ko ñaanal bu baax xam naa mi ngi ñaanal boppam sax waaye Pastef bi muy doxee ci liggéey bi moom jéggi na dayoo ñun ñu ko séq ak moom xam nañ ko guddeeg bëccëg du noppalu guddeeg bëccëg bu liggéey bi xasee ba tàmbali noppi naa noppalu amatul jot ci boppam amatul jot ci liggéeyu boppam lépp ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci jumaa ji ci koor gi la koy def daanaka fu nit nekk moo lay dimbali sax ndax dimbali nit mooy fekk nit di ko xëcc ci liggéeyu Sëñ Tuubaa ku ci nekk moo lay woo téléphone wax la fa nga nekk boo nee sax joxeel ma nangam ba ma ñëw sax mooy génn ci poosu boppam joxe ko loolu moom lu ma mën a seede la kon nag bu mbooloo mi dajee ñuy xayma liggéey bi loolu war nañ ko wax te jàpp naa ne mboolem commerçant yi nga xam ne nekk nañ fi li ma wax kenn du ko ci wet bi kon yàlla na ko yàlla dëgëral te kàttanal ko te may ko wér bu baax a baax nag sàmm ko moo ko njabootam sàmm ñu itam bañ yàgg taxawee liggéey bi alaaj Moussa asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ci seen sant di ñaanal sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak ñun taalibe yi ñëpp bi jaay seexlu xadim ah daanaka eh, li mata wax lépp wax nañ ko ba noppi fa tolloog nag am na ñoo xam ni ah, am na ci ay ay gan yoo xam ne dañuy soog a ñëw fekkee si lii ah am na ku mu ah, waa waa gaar bu ndaw jaaykati gerte yi am na ku leen fi teewal ñu koy wax Cheikh Dieng ci turu sëñ Cheikh Ndiaye Marema Niass waa Darlu Kër kàbbu ñoom it ka jiite teew na fi muy Cheikh Sarr waa euh, Moustapha Cissé teewal na fi marché Darou Manane Alaaji Moustapha Dia mooy te moo moo moo moo moo teewal marché Darou Khoudoss Modou Kebe station Total ba bu Alaaji Dam Silla Taw Ndiaye moom itam yable na fi ku ko teewal ci ci turu gundindi moo leen jiite Assane Gueye gaarasu Dakar ci ñi jiite foofu teew na fi sëñ Sini Dieng ah xam naa ni euh, euh, moom moo jiite marché Ocass te moo moo jiite waa délégué mooy marché yi nekk ci dëkk bi yëpp moom itam ñu ñu ngi koy euh, euh, ñu ngi koy nuyu sëñ Tamsir Thiam mooy itam teewal fi teewal fi bis ci bis ci ci yëpp euh, bu dee transporteur yi sëñ Xaadim Guèye ak Idika ak Mamoun Sànq ñoom it ñoo jiite chauffeur si ak ak transporteur seen teranga bi nekk xayra mooy itam Euh, ki ma doon bindal léegi moo leen fi teewal ñu koy wax Abdourahmane Touré ma nga ne toog ah li ma am na koo xam ne sax war naa ko njëkke waaye xale juum muy muy monsieur le maire Ka waaw ñu ngi koy nuyu di xamal mboolem itam daal ni comme ni ñu ko daa wax waxee rek daayira bi moom ni muy doxee Eh, amul kenn ku yaakaar ni waroo ci man mën a mën a dugg moom boo xoolee ni comme ni ma leen ko waxee woon rek ci liste bi ki joxe ñaari million ki joxe deux cent franc ki joxe vingt mille ki joxe cent mille lu waay joxe ñoom daal di bind ab leetar boo xam ne leetar ba dang ci jot ba mu wóoral ni la nga joxe woon agsi na waaw doon loo xam ne daal liggéey la boo xam ne bañ ko tàmbalee def def ak léegi yaakaar naa ni war naa mat fukki at ak juróom benn wala fukk ak juróom ci ren ah, te yaakaar naa ne bul woon ak daaw ci couvre-feu bi at mu ne fam tolloon daa gën a jëm kanam ndax loo nga xam ne bañ koy commencé lañ tàmbalee woon un million bi manqué woon na te daaw jekk demoon nañ ba yaakaar naa toll ci quarante million wala quarante et un waaw ba nga xamante ni bii daal loolee nag dañoo lañ bëgg daal ñëpp eh, yokkaat seen pastef ba nañ doon doxee mu gën a jëm kanam bu baax daal waaw te xam ne itam li ñuy defit li ñuy wax naa eh, amul aw sasit tey li ñuy joxe itam doon loo xam ne ñu ngi koy def fu ñu xam fu dal son sunu xel di ko defee nu leer nañ ñu ngi sant nag sëñ Afe di sant waa daayiratu xet ma ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay ni ñuy doxe moom macha allah yàlla na yàlla lafa lafal leen ca talafal nu ko te liggéey bi gën a jëm kanam te te wérul nu may nu fanu gudd fan fanu gudd yokk wërsëg yi baax na na jërë ngeen jëf kon xam naa gannaaw jotaay bi yàgg na te dëkkuwaay xaw naa sore dañuy jël kàddu gi rek jox ko sëriñ Afia bu ko defee mu tëj jataay bi ñu ñaanalante nag te jéem a jublu ci liggéey bi wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya al mursalin wa ala wa sahbihi wa xadimi ajmain wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñépp di ndokkeel ñëpp di balu ak ñëpp di dellu nag di sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mayoon daaw nu toog fii di fi waxtaane lu mel ni nu fi waxtaane ren it mu mel nu ñu toogaat fii di fi waxtaane lañu fa doon waxtaane daaw am ci mbokki pas-pas yoo xam ne ñoo ñoom ñu doon séq liggéey bi yàlla dogal tey ñu ngi ca barsaqul muhammadiya ñaan su borom dolli seen yërmande dolli seen njëgal teg loxoom ci seen njaboot ba lépp luñ ci yéene woon ci njaboot gi su borom wuti leen fa te moo leen fa gën dugal leen ci li sëriñ bi di wax ni inna alladina saarahu li xidmati fa lahum diyaaru wasal jannati ñi nga xam ni yu njëkkante ngir liggéeyal ma kay ca digg aljana ñooy seen boroom ñu ñaar ñooy na suñu borom bool leen ci tey am nañ ci yaakaar bu baax ndax xamoon ne leen ci liggéey sëriñ bi ak sellal te sellal lu waaye am rek moo la ko may mi ngi tolloog nag barab boobu ñu nekk mi barzaq dara dafa dul doy lu waaye def ci lu baax lu bari bari boo demee foofu da nga ko réccu waa arxabul ashyaa lil amwaati raju ila li faalu saalihatan tanfahum in qafalu sëriñ Tuubaa ne ne ñu nekk barzaqul muhammad yi ko pëkk pëkk na ko loo gën a bëgg mën a dellu rek àddina donte ab waxtu la nga ma def fa rek wala yi waxoon suma ma dellusee mu jariñ ma kon foofa dara du fa doy kon moo tax ñu leen di sàkkul njëggal di leen sàkkul yërmande nun ñi fi desandi te xase na toppi benn par benn ba jeex tàkk kon ñu bàyyi ko xel bu baax xam ne fii mooy këru jëf waaye fee moom kër këru notti rekk la amatul jëf kon lu ñu bëgg foofa rek nañ ko tàmbalee fii yàlla na ci yàlla dimbali ci barke Sëñ Tuubaa ñu ngi sant nag bu baax te ci sant gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu wara di ñaan suñu borom sàmm ko bu baax ndax yàlla dogal na moom ñëpp la tolloo waaye xam naa ne daayira bi moo ci raw ndax lépp lu nu mës a digal rek moom dina ko ànd ci jëf ak ci xalaat ak ci lépp dóoréer nuñ ci dara dimbali nañu lool li ma ko waxoon ca gàmmu gi ne ko loolu sant rek sax nga ko dimbali ba ñu defe ko nu kawee nañ ko bëgg woon te yaa yaa ca jàppale kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm di sant mboolem njabootu Cheikh Khadim bi ndax foofu mu taxaw fi la bokkam yëpp nekk ku ne kàttan yaa ngi koy def ci lii ak ci leneen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñett ñëpp di sant itam mbooloo mii fi teew di boroomi pas-pas yoo xam ne ku nekk yaa soñu sa bopp yëg ne lii du leen kenn lépp ñëpp a sëriñ bi rek te ku nekk am nga ci wàll te ku nekk wàll nga ci am ñëbloo ko yaa ngi koy def nii kawe ni nga ko mënee yaa ngi koy def nu kawe noonu loolu yàlla gis na ko su mën tudd benn par benn par benn nit lañuy tudd waaye nañu xam ne nun ay seede rek la ci waaye sëriñ bi moom mi tax mi jëf moom gis na ñëpp xam na lépp te it ko am pay la te asgor gor la itam waaw am na pay te as la kon yàlla na faye ni mu toll barke borom Tuubaa kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji moom jërul gudda ndax ak kenn rek la waaye nu xam ne kon liggéey bi jógaat na ndax sëñ bi dafa joxoon ndigal ñu def ko nañ ko daan defee daaw ak daaw jéeg nu xam ne daaw dafee jaar di fatara boo xam ne ñaare lu mel noonu su ma saa am léeg mu rëqal mbir ndax daaw ñi nga xam ne ñu aju ci mbooloo yi ñu bari ñëw nañ waaye individuel yi nga xam ne dañ naa jaar ci seen bopp directement am na ñu bari ñoo xam ne ñëwuñu ñu nga xam ne ñooñu lag ne leen liggéey bi jugaat na seen nam doonoon daaw jéeg ak daawaati ñu ñun takkaat suñ suñu ndigg xam ne dëgg la ni jamono toll kenn ku wax nit ndax mbas mi ku ne xam ne jàpp na eh, poos yi bu baax a baax waaye nag sëriñ Touba moom xamul naqar ak jamono yoonam nekku ci maam mbir yi mi ci pas fas yi rek ni mu bëgg moom fokk mu am ki ko ki ko fas yéene def na fokk mu def ko du xam sax fu mu koy jëlee ndax loolu ci sëriñ bi la nekk bëgg-bëggam moo du taxawati kon ku am positif rek la nga bëgg na ko bëgg nga koy defe waaw kon mbir yi ci passé des waaye jamono moom yoonu Sëñ Tuubaa nekku ci waaw ñu ko ñu bàyyi xel loolu kon ñu ngi soññu ñëpp di soññ suñu bopp te kat suñu xam ne ren moom fokk dana dana dana dana dana dana dana diis kon ñu ngi soññu mm, sëñ Moussa ni ñu ko waxee sëñ kabu sëñ Baara ak mbor yi topp seen gannaaw yëpp ne leen liggéey bi daal kon dafa mel ni ren dafa dooraat beneen liggéey bu yees ni ko suñ kàbboo xewoon léegi maam fokk mu diis di soññ itam ñi ci bitim réew yëpp suñu asan mi nga xam ne moo suñu asan Jóob mi nga xam fa nekkal te man ne ñu mën a ne moo fa nekkal réew yëpp ñu ngi koy digal ñu ngi koy fàttali mu soññ ba réew yi nga xam ne ci moom lañ jaaroon mu jokkoo ak ñoom soññ leen ci liggéey bi xam te ren liggéey bi daana daana masa jafe naka jekk daana masa rëy naka jekk waaye ren lay du wax ne jafe ndax dara mos cee jafe ndax siñ si mbiru jafe ndax ku ne xam na ne liñ ci dépensé kuñ ko wax sax doo ko gëm ak fu mu jëyee doo ko xam ñi koy joxe bu ñu ko joxee fàttali ko ndax sëñ bee tax kon ñu ngi soññu ñëpp muy ñi ci réew biir réew mi ak ñu ci biti ñu ma ko waxee sëñ Assane ñu ngi koy sant mu jokkoog mboolem ñi nga xam ci moom dañ jaaroon ñi nga xam tamit da jokkoon ak bi directement ñi leen di soñ ñoom itam euh, ñoom laam ñoom am Amsatou Lam ak mboolem ñi nga xam ñoo nekk ci réew yi ci biti ñu ngi leen di xaar fii nag moom mën nañu wax ne dara du fi doy moom dara du fi doy lu ñëw rek xaj xaj na ci kon ñu ngi séntu ñëpp di ñaanal taw tawféex ñëpp di ñaanal sutura ñëpp ñaan sunu may wér ñëpp mu sunu ci lii réew mi di ay jafe-jafe di ay wér lépp su ma doon teg ci barkam Sëriñ Tuubaa ñu ñaan te ñëpp fas ko ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéey sëriñ bi te lu ci waaye fas mu am ñu ngi ñaan jotaay bii daal murid sarax yi fi nekk te mooy ñi fi nekk ñëpp ay murid sarax lañu ñu doggu ci lii di nuru am mbas wala ay yëf yëpp su borom jëlee fi te jafe-jafe yëpp suñu borom taggi ko dëgg la jafe yu ma naa xalaat ma dana jar xalaat ñu ne xëy na ba jafe-jafe ciy topp waaye suñu suñu borom loolu safu ko de jafe-jafe yi yomb yomb lu bari mën na ci tege waaw kon liñ ci yaakaar muy jafe-jafe jaal ko su borom soppi mu yomb yomb barke sëñ Tuubaa na ko ñëpp fas rek bu ko ñëpp fasee rek dana am waaw yëf yi moom yëf yi sëñ Tuubaa pasteef lañ ciy jëfandikoo ñëpp am nañ pasteef da koy rek yëf yi jeex jërëjëf jëf jazakumullahu xeer <laughs> kon kàddu yu mat na sëñ bi ñaan rek bu ko defee ñu yëkkati jotaay amin ngeen jëf jërëjëf euh, mbokk yi ñoo ko ànd teewloondoo muy ndaje mi nga xam ne moom lañ doon amal fii ci grande mosquée bu Touba ci ajjuma ji dëppook le 9 avril 2021 lépp da jëm ci waajal kooruk 1442 ginnaaw gàddaayuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la ko daayira Muxaddamatul Xidma di dundale fii ci grande mosquée bu Touba ni ñu ko waxee sànq rek ginnaaw buñ ci amalaatee ndigaluk Cheikh Mamadul Muntaxa loole nag euh, sababoon ñu doon amal ndaje ak euh, ñi nga xam ne ñoo di opérateur économique yi waxtaanee lépp loo xam ne moo jëm ci waajal ndog yooyu ak euh, yi nga xam ne moom moo ci aajow dégg ngeen rapport yi nga xam ne liir nañ ko fi dégg ngeen tamit waxtaan yi nga xam ne jib nañ ko fi lépp rek ngir li nga xam ne moo jëm ci ndog yi ñuy amal fii ci grande mosquée bu tubaab mu nekk loo xamante ni day gën a ñoŋ ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki jullit rek ñoom ñoo ko tax a jóg. xanaa rek di soññaat mboolem opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu xam ne liggéey bi seenub liggéey la nañ fas yéene ñëw ànd ceeg daayira mu xaddamatul xidma ndax ndigal la loo xam ne Chamal Muntaxa Mbàkke Bachir yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér moo ko joxe kon ndigalu sëñ bi dañ cee war a taxaw saa su ne kon fépp foo xam ne rek opérateur économique ma nga fa na ñëw ànd ak daayira mu xadd matul xaddamatul ma ndog yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci grande mosquée bu Touba lépp rek jëm ci jullit yi nga xam ne danañ leen toppatoo ci weeru koor gi santaat leen bu baax gërëm leen di leen ñaanal kooru jàmm da ànd kook daayira Muxaddamatul Xidma fii ci grande mosquée bu Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu